salaamaaleykum gars yi nuyu naa leen dal leen ak jaamu ci Sen Sport 221 Kalidou Koulibaly l'international sénégalais kayiti xibaar yu bari ñu ngi bind ci mbiram ci li nga xamante ni moo ajo ci mbirum corona bi nga xamante ni moom la ñuy wax ne moo ko dal xam nga moom depuis ay fan ci ginnaaw dañu koo ber ndax dañoo waxoon ne daal positif ci Covid bi am na ñeent fan gannaaw ga ñu dal di koy test di xoolaat yaramam ndax wér na am déet waaye bu ñu sukkas ndekoo ci kayiti xibaar yi bi ko testé dafa daal di continuer di positif maanaam kon mooy wéragul. loolu nag nekk na loo xam ne xëy na moom jaa jaaxal na ko ndax yàkkamti naa dellu si waat dafa am nag yenn ci kayiti xibaar yoo xam ne dañoo bind ne Koulibaly kaaf dañoo bañ ne dañu ko testé muy protocole médical bi loolu nag boo ko liiree yem ci day nekk loo xam ne xëy na mën na la jaaxal ñu bari di woote ndax laajte ndax kaaf dañoo bañ Koulibaly joué ci CAN bi wala dañoo bëgg Sénégal teel a toog lan moo tax ñuy jël seen cadre di leen bertanaan dañoo dañoo positif lan moo tax kenn Koulibaly bëgg joué ci match bi ñu bañ ne duñu ko testé loolu yëpp ay question la yoo xam ne jamono mu ngi daw ci bopp ñu bari ñenn ñi di woote di ko laajte li xew du dara lu dul Koulibaly dañu ko testé woon positif mu toog ñeent fan ñu daal di koy testé waat di xool ndax wér na mais bi ñu ko testé waatee dafa continuer di positif léegi nag foog mu xaar lu toll ci 48 heures muy ñaari fan yu mat sëkk avant ñu koy mën a testé waat buñ sukkandekoo ci kayiti xibaar yi loolu mooy li nga xam ne moom la moom la kaaf tëral moom nag nekk na loo xam ne xëy na moom mënu ko comprendre moom li mu bëggoon moo ñu testé waat ko xool yaramam ndax moom dina mën a bokk ci match bi ndax bu ñu ko testé woon tey ne négatif na da gis ne kulibali kon xëy na dina mën a bokk ci match bi voilà waaye nag dañu koo xaarloo ne foog mu xaaraat yeneen 48 heures avant ñu koy mën a testé waat loolu nag mooy loo xam ne moom Koulibaly daf ko jaaxal te mënu ko muñ moom li mu xamle sax dem na ba ne moom match bi nga xamante ne Sénégal war nañu ko jouer seen diggante ak Guinée bu dee moom bokku ci jouer wu ci daanaka moom gisootu fi njëriñam moom Koulibaly loolu la gis kayiti xibaar yi sax bind nañu ne dem na sax bay menacé di xamle ne day jóge foofu nga xam ne mooy otel bi loolu nag mooy day génn rek euh, bàyyi groupe bi dégg nga dem defi leneen bàyyi ci li nga xamante ne mooy kan bi ndax li mu jàpp mooy bu dee moom euh, mu ngi foofu di waajal kaan euh, bi lu toll ci weer loolu sax la wax nee na lu toll ci weer mbaa ko jege moom ngi fi ak groupe bi di entraîner di waajal li nga xamante ne mooy Coupe d'Afrique bi ñu dem ba agsi fii benn match sax mënu koo jouer moom daal loolu nekk na loo xam ne moom mënu ko comprendre loolu moom euh, mënu ko comprendre ku ne xam ne ne Koulibaly gaynde la dafa bëgg Sénégal teyit gëm na ne kan bi Sénégal war na ko mëna gagné teyit mom gis na ne am taxaway pup bu mu ci wara am lool yépp moo tax mu yakamté dellu ci waat ta nee match bi Sénégal du jouer sen digënté ak Guinée daf ci bëgg jouer dé nga bu wu ci danaka mom gisul na njëriñam pareeti na fi ci équipe bi loolu moy li nga xamante mo xew ta lool nak ngir mu mëna xam ndax mën na bokku ci match bi am dé fokk ñu testé ko ta gaay dañu ko wax né nak fokk mo xaar 48 heures ñu ko soog a testé wat loolu tax yenn xibaar di bind né dañoo bañ né dañu ko testé waaye ki nga xamante ne mooy président maître Augustin Senghor xam nga moom mooy premier vice président ci CAF moom waxtaan naa Koulibaly xamal na ko carrément ne loolu mooy li nga xamante ne moom la règlement bi tëral kon dafay mën a toog xaar comme ça 48 euh, heures rek su ko defee ñu daal di koy testé waat dégg nga bu négatifee di nga gis ne dina mën a ànd ak équipe bi waaye pour l'instant foog mu xaar daal li nga xamante ne mooy waxtu woowu nga xam ne moom la ñu ko appal. loolu dal moom lañ ci mëno indi comme leral ki nga xamanteni sax moy sélectionneur bi di Alioune Cissé doon na amal li nga xamanteni moy press conference tay yi ci bëcëk bi moom ak Joseph Lopi voilà doon na amal ben conférence de presse moom sax dal dina sanni ay cadre ci loolu ndax moom leral na na ay mbir yo xamne dal ci li nga xamanteni moy proto protocole médical bi moom mënu ko comprendre moom ki di Alioune Cissé loolu nak moom nek na lo xamne ne na ñu bari sax comprendre uñ ndax kat équipe bu Sénégal bi bu ñuy xol ba kan bi tambalé ba mënu ñu mat bu ñuy ñëwé bala ñuy paré ñeneen ñëw ñeneen ñu testé waat ñii ne dañoo positif kenn mënul comprendre Edouard Mendy Kalidou Koulibaly ci cadre la ñu bokk bokkuñ ci match bu njëkk bi Gana Gueye ngi nii testé waat nañu ko ne dafa positif ci Covid bi du mën a bokk ci match bi. te am na ñoo xam ne sax bokkuñu woon ci matt bu njëkk ba te ba fii ñuy waxee sax leeragul ndax dinañu mën a bokk ci matt bi ay mbir la yoo xam ne daal dafa xaw a jaxasoo leerul trop ci bopp nit ñi wala lii nag mooy li nga xamante ni xëy na moo jaaxale moo jaxase bopp Sénégal bi moo tax mu ne am na mbir yoo xam ne daal mu ngi xew ci protocole médical bi moom daal mënu ko comprendre kon mbirum Koulibaly foofu na toll wala ñi nga xam ne dañu doon euh, laajte di gëstu mbir yi maanaam ndax moo tax ba Koulibaly mënul bokk ci match bi la moo tax ñu bañ ne duñu ko testé loolu képp la foog mu xaaraat 48 heures avant ñu koy mën a testé waat loolu mooy li nga xam ne loolu lañ ko wax te moom daal lool xëñ na nekk na loo xam ne mënu koo muñ li ma bëgg mooy ñu daal di koy testé mu bu fekkente ne négatif na mu daal di mën a bokk ci équipe bi joué ci match bi nga xam ne war nañ ko am seen diggante Guinée voilà moom ki nga xamante ne mooy Koulibaly l'international sénégalais kon dañuy gis ne match boobu Sénégal war a joué seen diggante Guinée mën nañu jàpp ne kii di Sadio Mané moo war a nekk capitaine bi ndax ki nga xamante ne mooy gaana Gueye bi nga xam ne moo fi wutu woon Koulibaly du ci bokk te kulibali ci jëmi boppam dégg ngeen li ñu ci wax moom te mën nañu wax ne daanaka du ci bokk ndax mbiram ay mbiram leeragul voilà kon ñu jàpp ne Sadio Mané moo war a nekk capitaine du Sénégal ci match boobu. ci bitim rew nak lañuy wax tuuti ci mbirum transfert ki nga xamantene ne mooy Cédric Beckambo bi nga xam ñu ngi leen doon wax ne ay fan ci ginaaw ne Olympique de Marseille dañ koy signé officiel na dal dinañ koy signé dégg nga fofu lay nekk ba juin 2024 mo ki di Cédric Bekambo nekk ancien attaquant bu Villarreal mom ki nga xamantene mo Bekambo bu bile nekkoon ko xam sax club yu mel barcelone ñu ngi doon wax ne bëgg nañu ko signé ku mëna football nak dugal rek lay def wala jamono yu signé na fofu la ci olympique de marseille ki nga xamante ni nag mooy Emerson bii nga xam ne mu ngi foofu la ci Olympique Lyonnais te ñu leen doon wax ne Chelsea dañu ko bëgg Lyon bañ ne duñu ko bàyyi ndax Lyon kat dañ leen ko abal képp de waaye dañ ci am doole lool ndax accord bi ñu amoon seen diggante Chelsea mooy dafa war a toog foofu ba saison bi jeex moom Emerson kon nag Chelsea bu ñëwee ba ci digg saison bi ñu bëgg ko jëlaat du yomb ci ñoom Lyon nag ñoom dañoo lànk ne duñu ko bàyyi Chelsea nag am na neexal bu mu teg ci taabal ji pare na ngir jox Lyon lu toll ci 4 millions d'euros ngir ñu bàyyi ki nga xamante ne mooy Emerson mu delluwaat foofu la ca Chelsea voilà ñeenti millions moom la Chelsea bëgg a jox Lyon neexalee leen ko ngir ñu mën a bàyyi Emerson ngir mu war a ñibbi foofu la Chelsea football club bu ñu sukkandikoo ci kii di xibaar yi. ki nga xamante ni nag mooy kii di Diego Carlos bu FC Séville. Newcastle United dañu ko bëgg a signé ñoom nag teg nañ ci taabal ji lu toll ci 25 millions d'euros waaye nag ñi di Séville dañ ko dal di rejeté bëgguñu 25 millions d'euros dañu ko xeeb lool ndax kat ki nga xamante ni di Diego Carlos bi njëgam mana li nga xamante ne mooy release clause bi mooy clause de libératoire bi bokk bu ñu koy xayma ci 80 millions d'euros foofu la ñu ko takk 80 millions d'euros mooy li nga xamante ne mooy clause de libératoire kon dañuy mën a teg loolu ci taabal ji ngir mu dem wala ñu waxtaan yokk seen loxo ba ci sevi nangu ngir war leen ko mën a jaay mais 25 millions d'euros yi dañu koo xeeb moo tax rejeté nañ ko buñ sukkandikoo ci kayiti xibaar yi. Barcelone gannaaw match bi ñu amoon seen digganteeg ñii di waa Real Madrid kayiti xibaar yi ñu ngi fësal ne. président bi di Laporta bi match bi jeexee dafa daal di dem ci vestiaire yi dégg nga daal di xoog ki nga xamante ne mooy kii di Xavi dégg nga maanaam daf ko daal di dankaloo ak moom dégg nga maam ko ndax dafa kontaan lool ci performance bi nga xamante ni Barcelone def nañu ko donte ne sax ñoom gagné wuñu match bi waaye li mu gis daal ci match bi dafa dal xelam lool moom kii di Laporta loolu moo tax mu remercier ki nga xamante ne mooy Xavi ak joueurs yëpp sax gannaaw bi nga xamee ne jongante googu jeex na moom kii di Laporta dafa kontaan lool ci waa Barcelone ci xar kanam gi nga xam ne wane nañ ko niki démb ci El Clasico bi ñoom nag match bi nga xam ne gagné nañ ko démb ci El Clasico boobu may na leen jamono ñu gagné li toll ci 100 ci ay El Clasico téeméeri téeméeri yoon gagné nañ ko ci li nga xamante ne mooy El Clasico mooy match boo xam ne joué nañ ko seen diggante ak Barcelone démb moo doon téeméereel bi yoon.